di wan ne suñ teewaay fii ci ñumaan euh, ngir fas yéene li nga xam ne euh, moom lan war a taxawu askan wi jàppale leen tax ñu yendu ak ñoom tey def fi ay consultation gratis jël fi ay fourniture jox ko élèves yi ci école yi ànd ak askan wi toog waxtaan ak ñoom ci élection yi ñu jëm mu leer na ne tey lépp loo xam ne ñi ngi ko ci daw guddi ak bëccëg ànd ko ak ñoom lépp pour jàppale askan wi ndax Ñumaan dafa bokk ci communes yi nga xam ne tey ci département Mbacké mën na noo wax ne mooy communes yi gën a arriéré waaye nag tey yéene ji nga xam ne am nañ ko ak it pas-pas bi nga xam ne am nañ ko ak it jaxasoo bi nga xam ne jaxasoo ko ak gouvernement Sénégal ki gis ni bunt yu bëree bëri ci réew mi ak liggéey yu bëri ki nga xam ne moom la fi yàlla teg mu jiita réew mi muy sunu xarit président Macky Sall mi ngi fiy liggéey liggéey rëy waaye nag dafa yemut rek nag ci ab maire mu toog benn place ah lépp loo xam ne nii askan wi soxla nañ ko ah muy dem ci xew rek yem ci ab maire dafa war xëy suba ba ngoon jot waa këram duñ ko gis du yendu du fanaanal ngir lan ngir soxlay askan wi kon ñun noonu lan jàngatee ne ab maire noonu la war a doxee loolu nag tax na ñu engagé xam ne fii ci commune bi liggéey bi nga xam ne moom la war ñu war ko fee def faw ñuy dem ci ci kaw muy gouvernement bi di leen demander soxlay askan wi agit di génn ci réew mi. bitim réew xam ne ay partenaires ñi ngi fi nekk ci partout ci monde entier partenaires yooyu di jàppale askan yi ak Union européenne wala yeneen ay organisation yoo xam ni ñi ngi fi nekk di jàppale askan wi kon nag loolu tey moo taxoon ñu taxaw fii wane suñ taxawaay ci SONES bi muy ndaw ñi ndax fekk na ndaw ñi jafe-jafe yi bari ci ñoom lool fekk na ndaw ñi wàllu liggéey metti ci ñoom ndax benn liggéey rek lan am muy mayu nawet bu jeexee ñetti weer la bu jeexee juróom-ñeenti weer yëpp kenn du ci defati dara ñenn ñi dañuy nooraani ñenn ñi tamit toog di ci ay jafe-jafe ñu ne nag loolu lépp nag fas yéene nan bis bu nekkee maire loolu dana jeex parce que xam nan fan lan war a jaar ak naka lan war a def ba loolu jeex ndax mayu noor rek mayu nawet rek du mbay maye noor mu ngi fi ci suuf si di ñu man itili jëfandiku naa ko jàngat naa ko yóbbu naa ko ñu def ci ay njàngat ba nga xam ne mbayu noor mën na fee am ndax tey ku jëm fale ci doyal yi danañ gis ne maa ngi fay def lu bari ci lu mel noonu. kon lan moo tee dëkk yi yi ñu wër lu mel noonu man faa am ci loolu bu ma amee jàppalem ndaw ñi ci jàpp naa ne ndaw ñi ñu ci bari ñu ngi ci sama wet. kon jàpp naa ne loolu dana yomb lu ne ndax jàpp naa ne benn bis rek bu ñu xëyee une semaine bu ñëwee ñu ne dëkk sangam la nan fa fas yéene jëmbat ci ay garab nan fa jë tax lu jëm ci mbayum noor jàpp naa ne buñ paree demaat ci beneen dëkk bu yàggee dëkk yëpp dana naat ci yooyu yëpp nag li koy waral mooy sa commune nga ànd ak ndaw ñi mag ñi xelal leen jigéen ñi dooleel leen bu ko defee commune bi ñu mën ko suqali ca insha allahu rabbi gëm nañ loolu ca yàpp naa nit ndaw ñi gëm nañ loolu leneen la ca des nag ñu jàppale leen ci wàllu sport ak yeneen ak yeneen ndax en tant que kilifa diina moom bu ne mais ab euh, lu jëm ci loolu ñu beneen bët bët leen ko gisee waaye en tant que maire bu war a mën a yilif ay gox jàpp naa ne ña nga yilif nag lépp da caa nekk kon ñëpp nga war a mën a jàppale loolu nag moom daneen bàyyi ñi nga xam ne ñooñu war a représenté ci terrain bi buñ ci eggee ñu wax ak ñooñ ci lu jëm ci loolu jàpp leen ni daal waa yéen waa ñu maan suñu yitte ak suñu pas-pas mooy jàppale leen moo tax ñu dugg ci euh, commune bi fas yéene ko ànd ak yéen jàppale leen ba fa mu bëgg mu egg mu fa maa ngi leen di sant bu baax maa ngi leen di gërëm euh, kontaan bu baax ci yendu wi nga xam ne tey yendu nañ ko ak yéen euh, sant leen it kiin ni ngeen taxawee yéen ñëpp rawatina yéen ndaw ñi ah, leneen la ci jëm nag ngeen xam ne ci ngeen jëm ñi ngi ñeen yàlla ka ci yàlla jox ndam nga xam ne moom la ko yàlla jox yéen ñëpp ngeen nongol ko ko jàpp ay loxo xam ne yéen a bokk ndey yéen bokk baay amut euh, séeréer amut pël amut wolof yéen ñëpp ay bokk commune ngeen bokk ndey bokk baay loolu laa bëgg ngeen doxal ko wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.